Abdourahmane Balde kenn du wax socialam ci biir Kolda. déedéet Abdourahmane Balde mooy produit bi nga xam ne dafa neex a jaay. te muy dëgg bu jaay boppam la. waxal lépp Abdourahmane Balde. nga ne ko social ku ne Abdourahmane Balde nga ne santé ku ne Abdourahmane ku ne Abdourahmane Balde nga ne inscription. waxal lépp ku ne Abdourahmane mooy ki nga xam ne nee ndax euh, Abdourahmane Baldé quand même euh, amal nañu di ñu defal cérémonie bu mel nii en tout cas depuis mu ma nekk fii chaque maa ngi constaté en début d'année dina def tout pour ay scolaire parfois même bu sillonner les établissements du département ku nekk xam nga ne période bu ñu nekk nii période bu am solo la ci parents d'élèves période bu métti la tamit ci ñoom donc bu ñu amee koo xam ne day ñëw di leen jàppale ci ay jumtuwaay yu mel ni bubit ak ay saak ak yooyu dañu mënuñ lu dul di ko rafet département ɗi welti e invitation he waɗi noon min belti invitation he ko gueɗe ɗiɗi d' abord ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hunde mawdude par ce que ko action de développement ko hunde nde ganduɗa aussi wallat jinnaɓe ɓe ganduɗa ɓe jogui caɗele pour faabade jande ɓiɓɓe mumen ɗum noon kala mbo min jiiɗi waɗa no ɗum ni minen maire ji département yero ɗum tan ɓe daari min garat min tawtore ɗimmel min jii pellital maɗa hande ko premier ministre amadou ba mbo waɗe élire premier tour élection ji ngeɗo ɗiɗi comme président de la république du sénégal koye ɗum ko ɗum daraniɗa ko ɗum paaleɗa minen kala département médinaire tous les maires et les élus ko ɗum woni golle amen si min jii noon neɗɗo notti taw koye ɗum ɓo dari min garat donc mi weltima aral yimɓe ɓe anden kadi o wattu ko sawdu politique o wawta haalde haalani politique miɗen ñaagui gala ɗo tawane no waɗi parene amadou ba ko ɗum wallata dura ñagaro mo walla en ko ɓuri ni kala arɗo ɗo kadi tawa non seulement waɗa parene hoore mum mais harano waɗi parene ɓuuri yimɓe sappo donc enen ko ɗum ñaaguide yimɓe ɓe ene weltano dura eɗen ñaagui hitande foof o waɗani assalamu jarama